on fait des commentaires que je partage uh-huh. suma xarit léegi nii à l'entame ci ba may ñëw toog fii mu ngi may tooñ mu ne ma mais Barth yow kan moo solal ma ne ko man baax yaay ma moo solal baax yaay couture waaw baax yaay couture ah, ma solal mais maa choisir baax yaay couture c'est ça nekk ak sa style absolument baax yaay couture nag xam nga ni président Macky ko moom nag non mais c'est pour admettre un peu d'humour absolument ah, je veux dire par là yow mën nga choisir Christian Dior que eh. choisir lii mais au finish lu tax lu ngeen wax mu am solo parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle le charme de la démocratie ñun ay homme politique lañu lu Khalifa Sall mën a tëju tëju tëju il faut que mu dégg lu Sénégal yi xalaat ci moom eh et c'est ça qui est important mais je vais vous dire une chose peut-être yéen ñëpp am na lu ngeen wax mais foofu da ngeen juum man je n'ai pas de capacité d'influence su Khalifa Sall mm-hmm. te man du ma fonctionner noonu man man du man nangu kenn du ma influencé xam ngeen léegi wax ngeen suma nomination Pape je l'ai appris comme tous les Sénégalais dama yeewu internet gis suma papa nommé nañ ko pression kenn du ma ko teg du mu c'est pa ma culture ni mon éducation politique du ma teg nit pression Khalifa Sall nga may dégg musuma toog ne ko soo defulee li dama lay bàyyi wala nga def li par force parce que loolu mooy manque de respect wante su ma d'accord di nga ma dégg fu ma jaar ak Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla et paix à son âme jaaruma fa avec aucun homme politique au Sénégal mais quand je n'étais plus d'accord j'ai dit que j'étais pas d'accord et j'ai dit que j'étais pas d'accord où je devais le dire après ñu ñëw génnal ma ay këyit ne ma dañ ma dàq xaw ma lan te xam nañ bu baax mënuñu ma dàq mais ci biir laa toog leen d'accorduma kon nag tey lu tax ba Ousmane dem si yàlla ndeysaan Ousmane Tanor Dieng ne na dem collaborer avec président Macky Sall ma bañ au nom de quoi aujourd'hui Khalifa Sall peut venir me faire croire à moi qu'on doit aller collaborer avec Macky parce que Ousmane Tanor Dieng c'était quoi le problème il nous avait seulement dit qu'il faut qu'on collabore le gouvernement et cetera parce que dañu amoon ambition parce que suñu toogee ci gouvernement bi nous sommes comptables du bilan de Macky Sall mhm. maintenant on avait une ambition pour diriger le pays maintenant yéen ngeen bëgg ma wax que maintenant c'est pas logique pourquoi j'ai refusé à Ousmane Tanor Dieng quelque chose que je vais accepter à Khalifa Sall je ne le ferai pas nous avons pris des, des, des, des une décision c'est de travailler à servir le Sénégal aux Sénégalais de choisir si c'est nous ou pas mais tout de même lu tax ñun ñu judd ci réew dëkk ci réew ñu ne ñun du ñu bokk ñun lu tax ñun du ñu bokk ñeneen di bokk mais ñun bokk qu'est-ce qu'on a fait de si grave ba ñuy génnal article 31 que pour nous au no de quoi c'est euh, scandaleux ça d'accord alors avant ñuy jàll ci beneen point juste une question ban avenir politique la ñu mën a xaar euh, ci parti socialiste en tant que non parti socialiste amatul il faut le dire la vérité au Sénégal parce que parti day jaay carte parti day am activité parti day def ay tournée euh, président Macky Sall ñu ngi koy fal ci 2012 du noonu 2012 voilà 2012 ak tey ñaata at la juróom huit ans juróom-ñetti at. bon juróom-ñetti at PS deful benn tournée deful benn vente de carte organisé benn manifestation PS amatul mais c'est pas grave parce que l'esprit même socialiste donc la social-démocratie dina dinañ ko déclate mais avant PS amoon na UPS avant UPS amoon na BDS nous allons reconstruire une famille de la social-démocrate de la euh, excuse-moi de la social-démocratie avec des Sénégalais de tous bords mais le PS son nom, la couleur, son cycle, c'est fini. C'est fini. Mais, mais Bart, mais, mais bon, tout à l'heure vous parlez de Tanor, mais on a vu que par spécialiste, euh, ñi ànd ak Khalifa dem nañ opposition ñi àndool ak Tanor dem si yàlla si ñu koy ñaanal ñu ngi ak Macky tey Aminata Mbengue Ndiaye Serigne Mbaye Serigne Mbaye am il se réclame du parti socialiste yéen. on yéen la ñuy wax le ban du du du socialiste lan moo tax yéen mënul comme le PS n'existe plus lan moo tax yéen mënul la woon jël seen responsabilité dès le début quitter le parti socialiste ba a xaar sax ñuy def bureau politique pour génnee leen. mais naka ngay naka ngay génn ci lu nga xam ne kenn moomu ko. yow ci nga bokk. mais aujourd'hui peut-être Bougane Gueye Dany est le président directeur général de ce groupe mais mënul dugg si léegi fii nii il dit que il faut que mu am faute grave wala dara tu rentres pas comme ça c'est, c'est, sinon c'est un licenciement abusif nous on a été mis à la porte du parti socialiste on a respecté aucun texte wante na xam nga da ngay xëccoo tamit lu nga xam ne ni sax à la limite jar na xëccoo tey wax dëgg yàlla tey kuy xëccoo parti socialiste na la yàlla may xolu mu ñàpp plus foofu ñoom maintenant ñoom lu ñuy doxal foofu mooy parti socialiste version mouvement soutien ah ok d'accord très bien alors ci beneen euh, actualité monsieur le maire dégg nga ko euh, mu di euh, entre kii di Ousmane Sonko ak monsieur le ministre Mansour Faye ñu bëri jàpp ne que c'est peut-être un débat puéril entre enregistrement ak diffusion wu benn audio yow naka nga jàppee ce jeu de yo-yo entre kii di Ousmane Sonko ak monsieur monsieur le ministre Mansour Faye. personnellement j'ai pas suivi je sais que nag c'est partout sur les réseaux sociaux damay gis les trucs et tout euh, man lenn daal laa mën a wax parce que man ñu ma ko seqal dama leen xam te dama xam seen degré de de cette de dangerosité lu ma mën a wax fii seen plateau mooy suñu amoon lenn ci Ousmane Sonko laa wax lenn lu gën a ndaw il serait mort ah oui parce que c'est l'homme à abattre on a liquidé Karim Wade on a liquidé Khalifa Sall il ne reste qu'Ousmane son bon les autres les Bougane ñoom c'est le parrainage ñoom ils sont exclus c'est comme ça fii c'est c'est le nouveau c'est la nouvelle république c'est la république de on choisit ce qui la preuve balaa élection yi am premier ministre génn na ne leen tant de candidats mooy am mhm. te lu mu wax moo am donc euh, noonu la tëddee donc tey euh, Ousmane man bokkuma ci Pastef donc mënuma je prononcer sur euh, son style et tout. Mais euh, le seul conseil que je me permettrais peut-être de donner à Ousmane Sonko, si je peux me permettre bien sûr, qu'il sache que d'où, qu'il sache que daal euh, Mansour du moromam. c'est-à-dire yàlla may na ko lu yàlla mayul Mansour Faye donc na ko téye ak ñaari loxo. na góorgóorlu di waxal euh, Sénégalais yi di xexel Sénégalais yi doxal Sénégalais yi. donc ce débat-là n'honore pas en quelque sorte Ousmane Sonko. non c'est pas que ça n'honore pas Ousmane ou ça honore Ousmane. Bon, Ousmane, <laughs> Ousmane n'a pas notre culture politique. Nous, nous sommes des politiques. Je vous ai parlé tantôt euh, du silence qui est une forme de communication, qui est le silence qui est un moment de la communication, le silence qui est une communication. Ousmane Sonko est un homme entier. Et ça peut peut-être des fois être un handicap en politique. Parce que ces gens, amatuñu lenn lu lu ñu mën a wax ci Ousmane lu leen dese tey mooy dem ko décrédibiliser. Et alors ça c'est toute la République qui s'est mobilisée pour le faire donc moom tamit na ko yàlla jàppale yàlla may ko euh, xel pour mu xam ne ni que à un moment donné muy mën a détecter piège yi quoi parce que amul culture politique cest kon ni ñuy defee politique nii ak moom ni ñu koy mais au PASTEF y a pas l'école du parti nous nous sommes nous on a été formés dans une pouponnière politique moi ce que je suis devenu aujourd'hui jeewu ma bës ak doon ko balaa may dee ñu ne Barth dafa changer Barth non. man j'ai été nu ma koy waxee en toute modestie j'ai été au sommet de la politique puis je me suis retrouvé dans les bas-fonds mais je suis un homme politique moi je sais rebondir mooy lu ñuy woyee de fighting spirit c'est-à-dire que mën na jël ñaari at ñetti at wante man j'ai fait l'école du parti Khalifa Sall a fait l'école du parti ñun dañu jàngal politique ñoom ils sont arrivés en politique parce que c'était leur destin donc dina am des fois ay manquements yu nga xam ne ni peut-être ñun nu ñu koy gisee wala ñun nu ñu ciy demee ñoom duñ ko mën a comprendre wala balaa ñu koy comprendre le coup est déjà parti mais une chose est claire Ousmane Sonko aujourd'hui est l'homme à abattre quant à ces vidéos là xaw ma ay enregistrement du loolu la gars yi wax dañ ko génnee mais loolu sa prouve une fois de plus. mais est-ce dire monsieur le maire. que Sonko n'est pas un bon politicien que man dama bëggoon est-ce que ça veut dire que Sonko n'est pas un bon politicien si on comprend bien parce que quoi qu'on puisse dire euh, quoi qu'on puisse dire euh, il est arrivé troisième à la présidentielle même euh, bu fekkee amuñu ay école du parti par rapport ak seen parti. non je définis définis pas <laughs> écoutez je suis peut-être pas là pour parler de Ousmane c'est mon ami j'ai beaucoup de sympathie d'amitié